que journaliste écrivain ñëw na ba noppi sax bu huit on se retrouve incha allah pour la seconde partie à tout à l'heure waaw bii tam mooy bu bees bi. Hmm. da nga ko yeggali kon. waaw dama ko dolli. dama ko hmm. dolli parce que bi biñ koy bind boobu temps gagné wuñu kan bi. Hmm. donc depuis boobu temps gagné nañu kan bi kon nag histoire équipe nationale de football du Sénégal mënoo ko bind te waxoo ci kan bi parce que euh, pendant euh, près de cinquante ans plus de cinquante ans d'ailleurs ñoo mais booy defar livre bi nga xamante ni da nga ko jagleel équipe nationale bi mënoo ci bañ a wax victoire u CAN bi ñu amoon euh, le 6 février 2022 au Cameroun. Hmm, kon deuxième édition bi mise à jour la. mise à jour la actualisé la et puis dolli ci leneen dolli ci euh, euh, xam nga football bi équipe nationale bi chiffres yi statistiques yi données yi mën nañu wax ne dafa réeroon sax quoi man dama def ñetti at pour pour retrouver ko pour liggéey ci léegi boo jëlee. li mais xanaa fédération ñoom <laughs> Euh, amuñu archive. Euh. non archive yooyu nag archive amu ci archive yooyu amu ci gis nga équipe nationale bi mu commencé. joué mais feuille de match. Euh, ci fédération mais am na am na année yoo xamante ni doo gis feuille de match même ci journaux yi équipe nationale barki dem bi bi muy joué contre Niger mooy six cent quarantième match équipe nationale depuis bi équipe nationale commencé joué donc depuis cinq novembre mille neuf cent soixante et un donc livre bi match yëpp ñoo ngi ci mais malheureusement am na ci entre 1961 et 1994 match yoo xamante ni amul doo gis feuille de match amul archive comme ni nga ko wax auprès de la fédération dafa réer dafa réer donc résultat résultat sec bi sag bi rek nga am mais ci 640 match yi mi au moins euh, mën naa wax ne 600 match yi jot na am feuille de match bi jot na am feuille de match bi euh, donc jot nañu def liste bi yëpp euh, li bees ci livre bi mooy ne ñi ma suy jouer équipe nationale ñëpp. ñoo ngi ci livre bi ñaata match la ñu joué euh, mi ngi ci livre bi euh, parce que aussi euh, boo yàggee déglu bon international ñu bare joué naa joué naa équipe nationale mais xaw ma ñaata match. mbaa fàttewoo Emmanuel Dakuña. <laughs> <laughs> Emmanuel. <laughs> man dàkku naa dàkku jaa wax nga dëgg <laughs> tout à fait donc euh, ñu mës a joué équipe nationale yëpp depuis 1961 seen tur a ngi ci euh, bu ñu marqué bi seen but a ngi ci ah euh, à part match yi nga xamante ni dafa manqué la quarantaine de match yi seen sélection yi la ñaata match nga mës a joué équipe nationale yooyu yëpp mi ngi ci loolu loolu laa dolli ci ci li ci livre bi quoi. liggéey nag mais est yomb na nga bind ci ab mbir ma nga xamante ne am archive ya jafe na. ah oui lu lu jafe la lu jafe la parce que euh, comme ni ma ko doon waxee bi ma fi njëkkee ñëw am na yoo xamante ni sax da ngay da ngay dem ba ba Paris euh, ci archives yooyu parce que bon euh, li am am na. Euh, boo demee ci dëkk boobu ci réew moomu ñun am nañ ay journaux yoo xam ne ñooñu ñooñu ko gën a denc ñooñu ñooñu ko gën a conserver yoo xamante ni doo ko fekk fii mais mais boo demee ci seen bibliothèque surtout bibliothèque boobu ñuy wax bibliothèque François Mitterrand boo demee foofu di nga fa fekk ay journaux yoo xamante ni journaux Sénégal la yoo xamante ni fii moom moo mënoo mënoo ko am wala boo ko amee ci ay conditions conditions yu yu metti la kon nag bi may bind livre bi euh, première édition bi mais dem naa séjourné à Paris pour avoir information yooyu xanaa euh, ñu njort na xëy na peut-être danañ ko dana am troisième édition. <laughs> ah waaw bu ñu bu ñu bu ñu. ndax fi nekkoon deux mille. Euh, waaw bu ñu bii passé ñoo fi nekk daanaka à part ñi ci bu ñu bu ñu yàlla mayee ñu ñu tollanti ñu doublé waaw ma loolu de war na war na war nañ mën a def beneen beneen édition ah. <laughs> waaw euh, Samba Mangane mi ngi lay tooñ mu ne ba fàttewu itam Ali Dia xam nga Ali moo def lu kenn deful. Eh. wala bokkul ak ki muy wax mooy kii. ki waxoon ni jarbaatu ba yàlla ndax benn club anglais ba ba dugg <laughs> euh, taarix euh, Sénégal. non bare na ay aventure de. ak les les de vache maigre là. Ah surtout après Sénégal 92. Euh, mm-hmm. sélectionneurs yi. Mm-hmm. tam bëri woon na jamono jooju entre Lamine Dieng Amsatou Fall Mayacine Mar. Euh, mhm. entre autres footballkat yi mhm. local yeeg mhm. ñooña ñoom Papis Konaté nekkoon Raja je crois euh, mais euh, fii ñu toll nii est-ce que mënees naa xam li limub joueur yi nga xam ni boo leen dajalee ñëpp mës nañu woo Sénégal ci nu ñu toll ah est lu jaadu la wala lu yenuwul maanaa la bon lu jaadu la hmm. foot football day dox parce que même boo xoolee hmm, réew yi ci réew yeneen yi sélection yeneen yi ni Sénégal def ni Sénégal def la ñu def euh, par exemple kan bi nga xamante ni moom mooy ñëw la bi bi ji ginnaaw suba euh, Afrique du Sud Afrique du Sud mooy équipe bi nga xamante ni moom rek presque moo am équipe à jour de base locaux ah je pense que sur les vingt sept jours def naa sax ñoom vingt quatre la ñu jël. au moins y' vingt jours yi nga xamante ni ci seen seen championnat euh, la ñu nekk mais loolu dafa am. lu koy ñu des Afrique lañ nekk ak yooyu loolu dafa am lu koy expliquer expliquer bi mooy contexte économique bi parce que Nigéria réew mu euh, maanaam Nigéria Afrique du Sud réew euh, réew réew mu rëy la bu am puissance économique donc club yi fa nekk club yu am doole la ñu mën nañu fay yenn salaire yi nga xamante ni mënoo ko am ci ci yeneen ci ci yeneen réew yi loolu moo tax ñoom seen jour duñu dem. foofu foofu la ñu resté ñiy génn moom ba ñiy génn moom barewuñu ah bon boo jëlee pays bu mel ne Égypte Égypte aussi un peu un peu loolu la bon peut-être depuis bi Afrique du Sud bi Afrique bi Arabie Saoudite tijjee Qatar tijjee ak ah, yooyu ak ah, professionnel bi sax ngay gis ni ñu gën a bare di dem di dem ci réew yooyu mais sinon ñoom tamit seen équipe nationale souvent c'est des jour à base locaux équipe nationale bi ñan ñoo ci gën a fës xam nañ ay jamono on parlait des SNEF les Sénégalais de France ak affaire yu ni mel. Mm. ak euh, tey jii nii ñi nga xam ne ñoom ñooy jouer dans les championnats européens ak ñi nga xamante ne aussi ñoom ñooy produit football local te dugg ci biir équipe nationale. bon boo jëlee boo jëlee suñu équipe bi par exemple équipe Sénégal euh, euh, presque xaaf-xaaf la ko on on sait que bii nii moom. moitié xaaf-xaaf la quoi presque joueurs yi nga xamante ni c'est des joueurs yi nga xam ne yu jógee fii dem dem en Europe. ñi si des mooy ñuy wax binationaux ñi nga mhm. xamante ay doomu sénégalais la ñu foofu foofu la ñu juddoo mais une fois encore tendance boobu da nga koy gis ci pays yi nga xamante ne à forte immigration mhm. euh, boo jëlee Mali par exemple wala Guinée euh, aussi da ngay constater loolu da ngay constater ne seen équipe yi aujourd'hui Euh, ah, ba ba ci ba ci Niger mu néew doole bi ngeen football bët ki dem. voilà un tiers wala ah. moitié bi ce sont des joueurs yi nga xamante ni euh, ay binationaux euh, bitim réew la ñu juddoo seen i seen i seen i parents ñu émigré woon bon ñu ñu ñu waree daal ci boobu ci boobu catégorie la ñu bokk. Ah, mais est-ce que ñoom tamit dañuy wér leen ubbil équipe nationale Afrique yi bu ñu essayé fa ñu juddoo ne mënuñoo yegg ca kaw ci équipe bu mag ba rek ñu commencé ne damay dem sama dëkku waajur. mais mais mais ñu foofu la ñu juddoo foofu la ñu xam bon bu ñu gisee seen xarit yi di jouer équipe de France wala équipe bu Angleterre wala équipe bu Allemagne wala équipe bu Espagne dañu am ambition boobu parce que foofu lañ juddoo foofu lañ yoroo ñooñu lañu fu ñooñu lañu footballal bon maintenant nag bon bu ñu xamante ni yóotu nañu foofu mënuñu ko jot mais dañu retourner retourner dem. bu ñu bu ñu xooloon ci <laughs> euh, Samba Ndiaye wala Ibou Ba. waaw ah. dinañ xoolaat euh, seen bopp de. ah euh, ah mais Ibou Ba c'était un grand joueur. il a une il a il a eu une belle carrière bon peut-être dañ ko xañ coupe du monde mille neuf cent un joueur de talent bon. voilà comme comme son père d'ailleurs que je salue au passage Ibrahima Ba mhm. Azobio ah, ah, ah. léegi euh, euh, xam na laaju Georges bi sànq ci lay sukkandiku. Mm. équipe nationale Sénégal nan la gën a jëfandikoo ay locaux wala ay lañ daan wax Sénéf jamono ji tey ñu naan. Euh, expatrié euh, lan moo ëpp ci lim ci jour yi diggante ñaari catégorie yooyu. mais wax naa la ne presque boo jëlee équipe bu bi dem euh, bi dem bi yegg démb Yamoussoukro presque euh, genn wàll gi ñooy ay binationaux genn wàll bi ci des mooy joueurs yi nga xamante ni fii lañ leen formé fii lañ jóg dem. joué ji en Europe genre ñoom Sadio Mané ñoomin ñoomin euh, Cheikhou Kouyaté ñoomin Gana Gueye ñoomin Bamba Ba ñoomin Bamba Dieng ak yooyu euh, defe naa ne boo boo boo defee lim bi euh, moitié bi mm-hmm. pratiquement fii la ñu jógee moitié bële fële la ñu jógee mm-hmm. waaw ñaari Gana ñoo ma sam ci équipe bi Gana Gueye ak Gana Camara ci <laughs> Guédiawaye jàppo sam doon football championnat Mauritanie Mamadou Koumé bala ñoo dem ci beneen livre bi kan bi nag mi nga xam ni Sénégal moo jël bi weesu te yegg démb Yamoussoukro mm-hmm. euh, am na ñu ni boo jëlee Coupe d'Afrique dikkaat ci mm-hmm. euh, day jafe nga am mennum taxawaay bi est-ce que loola mën nañ ko teg ci gone Aliou Cissé yem déet. waaw bon euh, am na ñu gañe gañewaat parce que boo xoolee histoire kan bi bon c' est vrai que kan yu njëkk yi doo ko considéré euh, ay cinquante sept cinquante neuf Égypte gagné na ko ñaari yoon bon mais ci vingt et unième siècle c' est à dire depuis deux mille am na ñaari pays yi nga xamante ni gagné nañ ko ñaari yoon benn yoon bi ñetti yoon euh, Égypte gagné ne ko ñetti yoon euh, Cameroun gagné na ko ñaari yoon te Cameroun équipe bu am chance la woon parce que final yi mu gagné ñaar yëpp c' était après des tirs au but donc contre le d' bi contre Sénégal contre contre Sénégal léegi kan euh, euh, euh, bi dina métti parce que 2000 2002 voilà mm. parce que là dañu dañuy xaar équipe Sénégal bi dañ koy xaar ñu bare dañ naan bon ñii ñooy favori yi bon dañ koy xaar maintenant man li may wax toujours sans pour autant xeeb suñu adversaire yi je di que Sénégal bu mënul génne ci groupe bi bon <laughs> ñibbi ñibbi ñibbis rek moo ko war mais man bon am naa confiance am naa yaakaar ne euh, Sénégal euh, mën na génn ci groupe bi bon boo gisee match bu muy mujj bi ñu bare wax nañu euh, ci après match bi ne match bi rafetul woon bon séntu woon nañu beneen match ci équipe nationale bi mais match de match de match de de kii la quoi match de préparation la bugguñu bugguñu woon a gaañu bon ñeneen ñi seex ñee naan bugguñu woon a wone seen li li ñu mën ak yëpp quoi pour man match boobu du ma ko considérer tellement que vraiment. compétition bi altine lay commencé euh, euh, contre la contre la Gambie et bon boo newee champion il faut se faire respecter il faut il faut gagner. Mm-hmm. moi je pense que c'est ça. wutiwaat ndam li la ñu wax. waaw ko wutiwaat ndam li mm-hmm. waaye ñu bëri dañoo teg gët ñi nga xamante ne ñoo di Maroc au regard de seen parcours ci coupe du monde bi. Mm-hmm. est-ce que wutiwaat ndam li dana. yomb ci kanamu Maroc ba nga xamante ne c'est la première équipe africaine à accéder en demi-finale coupe du monde non du yomb parce que boo jëlee vingt quatre équipes yi au moins am na quatre wala cinq équipes yoo xamante ni am nañu moyen am nañu potentiel bi pour gagner euh, pour gagner euh, CAN bi loolu moo tax dina jafe équipe yi nga xamante ni nord Afrique la ñuy la ñuy jógee nord bi muy muy Égypte muy muy muy Maroc muy Tunisie muy Algérie ak yooyu mais li ñu nemmeeku mooy ne toujours bu ñu ñëwee ci Afrique subsaharienne ay jafe-jafe la ñuy am boo xoolee histoire CAN euh, bi sax CAN yi ñu organisé yëpp. ci côté boobu côté Afrique subsaharienne mooy Afrique noire bi eh, benn yoon lañ ci mës a gagné muy 1998 Égypte bi mu demee fële Burkina Faso gagné mais sinon yi ci des yëpp Afrique noire seen équipe yi ñooy gagné loolu loolu nemee dañ ko dañ dañ ko remarqué. pourquoi parce que bon dañ naan équipe yooyu bu ñu ñëwee dañ naan bon newuñ ci ay condition du ñu joxe li ñu li ñu li ñu war a joxe mais nag moom Maroc mën nañu wax ne c'est l'équipe euh, la plus. Euh, africaine de de des équipes d'Afrique de euh, euh, des des équipes de l'Afrique du Nord. du nord de du nord de l'Afrique. parce que mm. Afrique du Nord da nga naan Nord Afrique. ñoom ñoo gën a jege ah. standard équipe yu Afrique noir yi quoi. Mm. kon nag kon nag ñoom am nañu am nañu possibilité gagner mais mënuñu wax ne forcément parce que Égypte dem na euh, dem na coupe du monde euh, euh, que Maroc dem na coupe du monde dem na demi-finale lool moo tax mu war a gagné. non hmm. pronostic bi mënuñu ko baal. ñoom xam nañ ne Afrique du fenn du Afrique. waaw fenn Afrique moom dafa dafa jafe. Hmm. mais équipe bu ne am na ñoo gën a yaakaar wala koo gën a yaakaar Sénégal Sadio Mané la am. Hmm. mais taxawaayu Sadio maane ci regroupement bi yegg si rek. Euh, tegul bagage yi euh, daal di bàyyi euh, gars yi fii dem Bambali daloo fa stade inauguration voyage bu gudd coono yi mu dellusiwaat ci le groupement bi waaye mu takk soxna lu baax la ñu ngi koy ñaanal bu baax absenté waat ba raté sax match amical est-ce que dans le haut niveau loola mënees na koo nangu nga nekk kuñ naan Sadio Mané regroupement jot rassemblement laaj concentration nga amal ci activité yu ni mel dem mbambali ñëwaat toogaat tuuti takk jabar euh, fanaani ñëwaat euh, tout ça est-ce que euh, loola méngoo nag au niveau. waaw bon c'est sûr que bu doon euh, ci yenn pays yi du du mën a du du demee noonu quoi bon mais euh, dañ euh, dañ. xam nga fii dañu mën a bay bayal tamit quoi. nañu waxante dëgg rek dañ Sadio lañ yaakaar waaye nañu wax. dañ koy dañ <laughs> dañ koy ñaanal mais c'est sûr que autour de lui. Euh, entraîneur bi euh, fédération bi mënoon nañ ko organiser euh, organiser d'une autre manière li nga wax moom am na dafa am que période bi période de concentration la la war a nekk am na yu bari yoo xamante ni warul a warul a. Hmm. warul a disper warul a disperser quoi. waaw ah, am solo ñu soobu ci beneen livre bi nga bind. Hmm. Mamadou Koumé. Hmm. ndax mi ni ñaar la. mooy deuxième édition la saga de l'équipe nationale de football beneen bi. sa métier sunu métier nga ko mm-hmm. jagleel mm-hmm. Euh, juddug euh, yéenekaay yi mm-hmm. euh, ci Sénégal bi ci njëkk Paris Dakar la tuddoon après ñu ne Dakar matin tey ji ñu ne Soleil mënees na ko mëngale noonu Paris Dakar loolo mooy rek jamonoy colonisation France Sénégal ah. moo tax mu tudd noonu téere bi dafa am histoire parce que téere bi man dama dem en France en 1985 cinq di eh, dolli jàng tasaf benn euh, spécialiste de l'histoire de la presse bu tuddoon Pierre Albert d'ailleurs moom laa déjee livre bi yàlla na ko yàlla yërëm euh, après mu ni ma euh, yow fan nga jóge ma ne ko man soleil laa jóge boobu temps soleil laa ne man quoi mu ni ma waaw léegi da ngay def mémoire da nga koy def ci soleil waaw bi ñu paree ci mémoire bi pare mu ni ma nag léegi man li ma bëggoon mooy ne nga liggéey ci journaux yi jëkk yi nga xamante ni am na Sénégal ñaari quotidien yu jëkk yi comme ci quotidien nga jógee ma ni ko waaw ma ni ko eh, mu ni ma est-ce que xam nga leen ma ni ko si dégg naa ko dégg naa ko mu ni ma léegi nag ci loolu la ñuy liggéey loolu mooy histoire euh, liggéey bi ah bon euh, liggéey bi sax yàgg na parce que man na fanweeri at mais dama ko bàyyi woon rek bon donc ci temps yi laa laa décidé ne eh, écoute naa ci naa ci jël def ko livre livre bi nag euh, comme ni nga ko waxee ci ñaari quotidiens yu jëkk yi nga xamante ni moo amoon Sénégal bu tudd Paris Dakar après Dakar matin benn famille moo ko moomoon famille tubaab de Breteuil euh, mais journaux yi comme seet seetu la seetu ci li amoon Sénégal ci année trente année quarante année cinquante euh, ba soixante dix parce que Paris Dakar d' abord dafa ñëw ba mille neuf donc ba ba ñu am indépendance. après Dakar Matin toujours même famille bi jël ko euh, yor Dakar Matin donc de 1961 à 1970 donc euh, journaux journaux yoo yu am solo la yoo xamante ni koo xamante ni dafay gëstu euh, di nga ci fekk lu bare bare bare loo xamante ni ci li xewoon Sénégal la ci politique ci sport ci fànn fa ci ci fànn yëpp mais. <laughs> li li mais est journaux yooyu comme. li war a doon. Uh-huh. est-ce que ñu ngi doon doon def seen liggéey. Mm. nañ ko waroon defee parce qu'on sait que am na lenn li nga xamante ne da doon xew ci réew mi mais dañ ciy noppi. li li nga wax li li nga wax lu am solo la parce que loolu loolu aussi am na yoo xamante ne événement yoo xamante ni journal journal bi def ci noppi parce que boo jëlee événement bu mel na. Caaroy ah, bi 1944 doo ci gis duñ duñ ci wax dara. boo gisee aussi yenn événement yi xewoon Sénégal par exemple 1962. Euh, dañ dañ doon moy dañ doon moytu dañ doon moytu lu bare ak mai 68. waaw mai 68 aussi même chose waaw bon mais euh, journalu commercial la woon journalu tubaab yi la ñoom tamit seen intérêt rek euh, moom lañ doon jiital seen intérêt mooy ne euh, ñi nga xamante ni ñoo fi toogoon ñoom la ñu àndal voilà euh, donc. Euh, genre tribune la euh, un peu pour pouvoir yi nga xamante ni ñoo fi ne woon en place pouvoir tubaab yi. Mm-hmm. mais après tubaab yi même le pouvoir du Sénégal ba 1970. Mmh. xam naa du xaj ci ci waxtu wi jeex na mais ginnaaw journaliste nga ci sport lañ la gën a xamee Modou Koumé mm. euh, wàllu sport thématique yi euh, journal thématique lu jafe la tam ci ci Sénégal mm. yow yaa ko njëkkoon a soob yaa ak ñoom Pape juuf dans mm. les années quatre-vingt-dix le sportif noonu la tuddoon foog naa machine oo ngeen nekkoon. bañ nekkee école primaire daanañ fa jaar leen ñaan ngeen may <laughs> journal euh, euh, loolu tamit lu jafe samp la ci ci ci réew mi am na ñu ciy génn gaa. Ah. est sax ñu ngi ciy génn vraiment. Ah, mais lu jafe la. am na ñaari journaux yu fi nekk mooy stade ak record. Mhm. waaw ñoo ngi góor ñoo ngi mais léegi avec le net aussi bon problème problème brûlé parce que am na information yu bari yoo xamante ni da nga koy da koy am ci note bi donc ñoom euh, dañuy def bi ci nawetaan yi ci bi ak yooyu mais problème sénégalais est-ce que sénégalais dina jënd journal loolu moom mooy mooy mooy problème bi quoi jërëjëf Mamadou Coumé kon ñaari livre yaa ngoog ah. ñu lay gërëm euh, bu ñu amee yeneen occasion nañ ci gën a xuus jërëjëf Georges jërëjëf euh, Soxna Naata jërëjëf Baba merci beaucoup Babacar Fall Georges Déthié ak seen gan Mamadou Coumé ñu ngi leen di ñaanal kendal ak jàmm ak euh, programme